voilà ci loolu la ñuy ñëw rek daal di ànd ak faatu Fatou loo ñu andi tey ci société ak faits divers ay ñu indi li nga xam ne fan yii yëpp ñu koy waxtaanee depuis vendredi euh, nga xam ne moom Serigne Assane Mbacké depuis vendredi il euh, wàllum pédophile wàllum répété sur moom Serigne Assane nag da daan sekk ak ay góor yu toll seen at 16 euh, ans 17 ans ñu moom nag Serigne Assane Mbacké daawu ca yem da leen daan booleel sax ay xaritam. ay sa taxawal nga wax rëy na <laughs> ay góor ay góor. tur yi jotuñu ko jotuñu ko lim mais au Diouf asti moom mi leen leen rek ma si metti mm. yeggagul si wax ji de Mbacke bi ma siy dégg ak xel kom bi. Serigne Assane Mbacke war ngeen koo xam moom benn conférencier la da daan jàngale. Mm. di waxtaan ci ay kilifa diine yu bari euh, boobu nag moom nañ jiñ jëf jooju. léegi moom moom.

xam nga dafa am lu waa ji waxoon ne chaque jour qu'on se dort et qu'on a des nouveaux dossiers wala cas euh, wala cas bu <laughs> ma mooy kaa am na si bëri na si ay témoignages yu si am nee naa leen man leen rek ma si meek mhm. metti bu ñu waxoon Serigne Assane bi rek mu yem ca mhm. waaye dañu tudd Mbàkke te bu ñu waxee xel koom may yaakaar ka nga xam ne moo di euh, Serigne Saliou moom dan nga daan gis euh, muy waxtaan ci waxtaanu Serigne Saliou euh, ba su waxee rek rongo ñi day dafa am ñaari dafa am ñaari Serigne Assane Mbacké mhm. kenn ki ñoom ñaan ñëpp ñu bokk ndool lañ leen jàppee. waaw kenn ki ku njëkk ka mais nit yi daa daañu def a te jënga ay du bokk leen même même même non bokk non non bokkuñu même fee. wala dañ leen ke infraction lañ ko jàppee quoi. maanaam dafa am ci lu mu nekkoon waaye bu ñu xoolee. Eh, sëñ Assane Mbacké bi ak li nga xam ne xew na. Mhm. dafa doy waar. dafa dafa maanaam xamatoo kan ngay wóolu. déedéet. ki nga xam ne tey moo doon taxaw di wax si waxu. Seexul Xadim. Mhm, sëñ Assane bu ma ko xamee maa ko xamee tey buy waxtaan si li nga xam ne moo di Serigne Saliou Mbacké. Mhm. di la wax jaar jaaru sëriñ Saliou. man à personne damaa demoon ba yor ay vidéo am doon ko déglu. dafa bett ñu bari. parce que image bi moo yéex xam nga. kenn xaareewu ko. Mm-hmm. naam nag bu ma juumu juumulee am see information yoo xam ne am na lu mu mësoon def ba sëñ Muntaxa si boppam ñoom ñu daloon si kawam ba mu génnoon baaluwaat. yoonu murit. mu mm-hmm. mel ni du woon tey. imagineel ne sëñ Assane mi nga xam ne tey moo doon wax si yoon bi. Mm-hmm. sëñ Assane mi nga xam ne tey da doon am ay taalibe. sëñ Assane moomee tey moom la gis moom ak lu toll si juróom-ñeenti nit yoo xam ne ñoom ñoo ko séq. di tëddee xale yi. am na yoo xam ne mënuñu ko wax am na fi ay témoignages yoo xam ne xam naa ne. mais euh, moom bañ ko jàppee xanaa. Euh, ay ay satu moom nag bi ko jàppee av euh, ñu ko jàpp ay ñi njëkk ñeneen ñi xarit yi ñoo njëkk a avoué ci mais moom Serigne Alassane Mbacké le ah, plus avoué na avoué mais li gën a doy ay satu moom nee na jëf ji tayu ko dañ koo sëriñ bu ñu xoolee moom en personne mhm. Serigne Assane moo ngi wax ci li nga xam ne moo di libération naam ñoom ñoo njëkkaane information bi moo ngi naan Serigne Assane Mbacké Khelcom mise en cause moom nee na depuis 1996 dafa nekkoon victime li jëfi pédophilie maanaam moom dañ ko ko doon def di mm. jéggul nag parfois ci kàddu yi foog ñu koy woddu du moom ah, moom woo dañ koo sëriñtu beneen bi mooy dañ ko ko doon def ba nga xam ne moom dafa dem ba lool loolu la si ne imaginel ki ko doon def ñu def ko ko 1996. ba kañ ma ko doon def. ba ñaata at la nekk ci yoonu Mouride di mbubboo yoon bi ba pare di jëf lool. kay nag ma wax la leen. Uh-huh. naam lii moo génn gëm. waaye suñu kilifa yi liggéeyal nañu lenn loo xam ne képp kuy publicité indo di ci teg kaboy di nga feeñ. di nga ndax yaa ngi door a dégg maanaam tey mënoo woote tey <laughs> non mënoo tey woote tey yoonu Serigne Touba. seexul xadim la mu liggéey mm-hmm. tey Serigne Saliou mi nga xam ne moom moom tey bu ñu Serigne Assane Mbacké teg si boo euh, xel ko euh, Serigne Saliou ni mu meloon ak ndaw ñi mm-hmm. nga xam ne bëggul woon ku dóor xale yi mm-hmm. bëggul woon ku leen wax lu bon euh, tey Serigne Saliou boo ko gisoon xale bu toogee xale yi dañuy lekk sax ak seeni loxo ni ñu taxee mu nekk moom tey yow ngay utiliser turu kooku ngay utiliser tey dëkk ba nga xam ne moom la sanc ngir tey nga jël xale di ko sax yàlla da lay toroxal da ngay feeñ maintenant ak lu mënti xew lii du raison du raison ne buñ la doon sàqu taxul tey wala dañu doon sëriñtu ak lu ci mënti am tey mënoo tey def ak yow ak sa benn. alors cas yooyu dafa bari saa chaque fois da ngay gis ku si jàpp danaan tay ko. dañ maa liggéey mu mel ni mu mel ni ñun suñ demee ba ñi ñuy jàngal suñuy diine di ñu waxal suñuy mag yu baax ñun ñoo ñoo mënatul leen woon je me dis que xaw ma fu mu jëm ay yooyu ba bañoon na ko eh, nit ñu bari dañ koo defoon royukaay bu daan waxtaan ci Serigne Saliou. ak dal bi doon bay jooy. Mm-hmm. su waxee turam rek da gis rongoñ yi. ndeysaan naam nag nit lu ne dina la def. moment bu ne mais dafa am lu ñu taxaw seetlu bi mooy. Mm-hmm. taalibe yi nga xam ne ñoo ngi nekk di dund injustice. Mm-hmm. parfois coow li day bëri bu nit yi di wax. xale yi waratuñoo leen yalwaan wala xale yi léegi dañu war a nekk si ay daare moderne mais booba tey bu ñu amulee sens ñi nga xam ne tey ñoo doon wax ne taalibe yi war ñoo def yenn mhm. ñoo ngi tàmbale am dëgga ah. mhm. mhm. ndaxte bii mooy énième fois même wàllum pédophilie bi ñuy wax nii même sëriñ yi nga xam ne ñoom ñooy jël xale yi di leen yàkkataan wala di def loo xam ne naka sudul noonu amoon na wakaam koo xam ne Habib la tuddoon ñoo bokkoon même koñ xale yi mu ko doon def màgg nañ ba tey mën ak ñoom ñoo tolloo il te ay kër yu bari la luwe woon ñam ko doon def bi information bi wàccee bëri na si ñoo xam ne dañ koo partagé ak man ci moo ñu ko def. Mhm. te moo nekkoon si koñ bi moo nekkoon nit ku baax ci moo nekkoon ki nga xam ne moom la ñëpp wóolu dañuy benn posture. Mhm. xam ne doo leen ko ko mooy li may wax moo di publicité indo de tekka boy day woote diine naka. wax jooju di nga ma wax. non non mooy mooy mooy tey mooy tey mooy tey ngay woote diine di def leen. xam nga mhm. doo ko ko foogee. Mhm. tey genre yow ñi koy def ñu ñu bëggoo di tamit wax ji dañ si dégg mhm. ñaari alibi il a tantôt tu as expliqué que ne euh, depuis 1900 je sais pas ko ko doon def. Ah, am 1986 lañ ko def ba moom mu dem waaw ñu déggaat ñu déggaat ci moom mu ne bi ñu ko defee yàggul benn da doon wut bayre ci benn sëriñ. bi mu ko defee poudre bi moom. ñaari ñaari ñaari wax la seetloo ne loolu la ñaari wax yooyu see. xam nga loolu am na. damay renvoyé fi ki ma leen waxoon moo di Habib te mu nekkoon Wakam mm-hmm. dem na bi ñu ko laajee ñu ne dañ doon maa ngi jéggul dañ doon dañ doon jël màndi wu ndaw ñi doon si liggéey mm-hmm. amul ndax dégg ngeen mm-hmm. maanaam côté sëriñ dañu dem di utiliser màndi wu xale di si liggéey tey bu ñu xoolee si ki nga xam ne moo di Oudiouf am 16 ans doon victime wala mu wax mooy bay di am di sew nekkatul woon ci sëñ Assane mhm. dafa créé woon ganam gangam mhm. ngir ñu jëf-jëf joojee xale yi ndax am na si koo ndax am na si koo xam ne lu maître lu l'ouest la tudd maanaam maître l'ouest euh, l'ouest maanaam <laughs> boo demee si boo demee si non boo demee si Facebook looloo ca ne mhm. euh, moom euh, bu ñu ak waykat bi Xadim Seen non bëri na bu ñu xoolee si au moom si boppam 16 la am wax na li nga xam ne dañ ko pénétrer maa ngi jégalu si kàddu yi mais dafa fekk ne dañoo war a expliquer nit yi wax leen la nga xam ne moo ca xew as Timbo moom 17 ans la am victime euh, lu mu wax ne Serigne Assane Mbacke xel koom da ko demandé li nga xam ne mu da ko boole keneen mu tëdd ak moom. kawteef mu doon jëf ju ñaaw oh, ay satu euh, je me dis euh, yi tamit bu ñuy bu ñuy dem di seetlu seeni doomu jigéen parce que am na yenn xaw xam ne góor mënu ko. mais xam nga mbir bi sax ne baal ma naam defuñu apologie viol mais te bu ñu ne woon góor kat moo ngi koy def jigéen. ñu xam ne kii kat mm. peut li mu doon góor moo tax waaye li mu mënul comprendre mooy góor buy seq ak moroomu góoram. Ah, doy beneen poñ. mais mais <laughs> boobu mais dafa am par rapport ak lii dafa am loo xam ne moom la tàmbaloon maa ngi koy maa ngi jégalu bi ma dagg tey tey les parents. Mm-hmm. taxaw seetlu gi tey mooy kenn ko am doomam moo ngi ñaan yàlla mu am xam-xam ba ñokk ba ñun sax dañ ñaan ñu boo amee sa doom. balaa nga koy dugal ci école nar ah, maanaam nasaraani na koy ko yóbbu ca daara ja mu xam diineem tey ñi nga xam ne parents yi diine googee lañ woolu woon wala tey fii lañ yaakaar ne li lay topp abadan sa àdduna wala tey li tax tey nga jaamu yàlla wala mën koo defee na mu waree ci yoonum lislaam mooy ñooñu ñoo la ko war a jàng te ñooñee tey ñoom ñooy jëf jëf gudul ja ñaaw beneen bi mooy li nga xam ne ñoo nekk si ndaxte xam naa ne Touba dina jël ay ndogal. Mhm. Touba du yoon boo xam ne du ñu nangu n'importe qui di ko tilimal seexul xadim ba muy liggéey liggéeyul ay yëfi caaxaan yi mhm. Ahmadou tey bu ñu demee tey ba ñëpp ñu naan Bamba fépp partout taxul ne li nga xam ne moo xewagum lii lii di si feeñ mhm. tey Serigne Saliou mi ma leen wax moom la sëñ bi euh, Serigne Assane euh, Assane doon mbubboo euh, di doon doon doon doon waxtaane sëñ bi am na nu na xale yi maintenant taxaw seetlu bi mooy tey xale yi nuñ leen war a aw accompagner mm-hmm. parents yi ñoom it boo amee doom mu dem fenn fi y a comportement yoo xam ne bu demee ñëw bu ko amee yow war nga def def jàngat euh, est-ce que aussi du côté euh, li mu doon côté garçon parce que am na yenn yoo xam ne góor bu ko mënee nëbb jigéen mënu koo nëbb ah, bu fekkoon je ma di bu fekkoon jigéen la dal am na yenn yoo xam ne parents yi ñu bari si seen dañuy seetlu seen doom yu jigéen yi ah. je me dis que ni ngay say doom yu jigéen yi góor ki day am. kersa mm. kersa di wax di dafay doon kersa. Mm-hmm. mënuma expliquer mbir yi fii. mais bu ñu génnee <laughs> boobaa ma ma ma wax leen plus un eh, égal deux. non non non sérieux xam nga lu tax. ñi seetaan tamit xam nga dañuy xale bu ndaw. Mm-hmm. ñu ne ponkal moo ko pénétré. surtout góor. góor fan jaar. bizarrement. à moins que peut-être moo waxee da nga ne ma dama am connaissance mais xanaa liquide lay utiliser wala leneen mais kooku tey bu doxee dans les normes dafa war a feeñ. seetlu dafa war a am. dafa war a feeñ. beneen bi mooy dafa am parents yoo xam ne daw res seeni responsabilité mënta weesu tey xale bu ñu am nañ ko yóbbu nañ ko yóbbu. nañ ko ñaata parent de famille ngeen gis tey. bu ñu yóbboo seen doom daara ja ba tey xamuñu seen doom si lan la nekk man en personne sama rakk sama rakk dafa nekk internat dama koy vérifier di def samay gëstu damaa dem ba foofu noonu xam fan lay jànge bu ñëwee yemuma si moom ñim fa àndandoo dem dama leen di gis mhm. leen jéem a coytu di waxtaan ak ñoom parfois ñu wax ma loo xam ne bu ko waxee mère bi day taf gémmiñam après ma wax ko da koy vérifier mhm. xale bi moo ngi jàng wala jàngul yaa ngi koy bëgg a xam mais tey am na si ñoo xam ne daw seeni responsabilité ñoom jur doom sànni lañ ci xam mhm. parfois dama koy wax ma ne yàlla am bëri na les parents sont fautifs d'une mm. am nañ ci wàll mhm. boo amee sa doom danga koy surveiller di ko xool boo amee sa doom foo ko mënti joxe euh, parfois de ko nemmeeku tey boo amee sa doom tey sëñ bi nga jox sa doom nañu waxante mu yor si trente wala quarante ndongo daara dund gi ni mu seeree lan lu muy basé wu pour yor leen yelwaan xale yi ñooy génn dem andi. léegi bu yelwaan bi doxul mu am gan boo xam ne ñoom seen problème problème góor lañ am ak xale bu ndaw. buñ ko joxee xaalis mooy lii. imaginel sëñ bi euh, defu ko woon gratuit. Euh, le problème que lu may que je pose moo nekk.

xam nga. am na fu ñu jot a jaar ak ñoom. par xaalis wala dara wala chantage pour xale mën am na ci am na njëkkee ñëw ci këram moom mm. bi mu waxee bi mu bi ko një bi ko njëkkee bëgg a saako. def ni ko soo bañee damay yuuxu ci koñ bi ni sàcc nga nee na xale bi loolu tiit tiit googu jàpp ko. mu koy woyaale am na am na si bu ñu xoolee si as euh, Timbo. Mm-hmm. moom la mu ca wax du leen lugul ne mu ne des coups euh, euh, moom moo ngi wax ne maanaam Timbo ri a couché avec moi.

boo ne ko kaay ma def la leen li da koy def beneen bi rawatina bu nekkee ne sëriñ ya nga xam ne ñoo nekk si daara bi ñeneen ñi maanaam xaalis boobu noonu dañ naan xale deux cent cinquante manque cinq cent mm-hmm. yelwaan bi nekkatul yelwaan rek natt la heure boo xëyee xale bi ñenn yenn daara yi war na andi deux cent cinquante ñeneen ñi war nañu andi cinq euh, euh, cinq cent léegi xale bi nga xam ne pour mu am deux cent cinquante day def de Wakam à Yoff de de Yoff euh, ba fi nga xam ne moo di Grand Yoff pour am deux cent pour am deux cent cinquante. bu amee benn waay joo xam ne kenn xamul lan la si jublu bu ko proposé junni da koy am. léegi euh, enquête bi mooy man li ma si wax mooy xam naa ne Touba moom. Mhm. seen taxawaay wala gëm-gëm bi nga xam ne xamee naa leen ko ñu dugg si yëfi caaxaan bañ na ko tey bu nekkee ne ñoom ñoo tegal seen gendarmerie bopp euh, fi nga xam ne moo di Touba ñu ne la Touba. greffage dañ ko fay tere Touba xeesal amu fa Touba mm. tux amu fa Touba sabar amu fa Touba yëfi caaxaan jaay sa bopp wala yenn yi amu ca tey bu ñu gisee kii nekk si lii nii mm. jàppal pare doon mbubboo yoon bi duñ benn mooy benn bu nekkee dëgg la mm-hmm. duñ ko ko baal jàppal ne moom personne non grata la moom fay fi ñu toll moom Touba daal bu nekkee dëgg la kay jaratul wax moom si boppam avoué na non en nga avoué na mais man sincèrement ba tey ma mënul comprendre loolu quoi léegi nag mooy dafa am leneen lu xew du lii rek mhm. bëri nañu nekk ci dëkk bi def seeni gan mhm. problème mu xale lañu am man nee naa leen du def apologie wu naan viol sax jigéen mais man o moins góor sax nga xool jigéen mais góor mhm. tey ay xale ndaw jàppal ne lii da leen di topp am na sànq yaa ngi naan booba tey ñoom leen koy def te lu tax waxuñu ko

recruter koo xam ne eh, day day def psychologue ah, pour mu aider leen yu bari yi mën a dugga ah, mën a amaat ay relation ak eh, ak ak eh, nit ñi. mën a génnaat en tout cas doy na waar. Hmm. non doy doy na waar maintenant nañ leen accompagner. niñ leen waree accompagner xale yi. Mhm. naam lii moom sincèrement buñ ko waxee trouble sànq yi ma doon wax ne si école boobu nekk ci Diourbel. Mhm. ñii moom weesu nañu wàllum. trouble mais ñooñu tamit lu leen dal. non ñoo maanaam jàng bi la jàng. jàng jàng maanaam jàng bee metti condition yi xam nga parfois. man damaa mujj a damaa mos a bañ jàng. non mooy mooy école d'excellence yi boo si nekkee ak yooyu. Mhm. Oh, parfois euh, dafa am yoo xam ne. am concurrence day am. ci seen biir day am moo tax moo tax ñii wit nañ leen accompagner mhm. mooy si ñi nga xam ne mooy xale yi nga xam ne moom la ñu wax ne. Mhm. dañ leen dañ leen sàqu beneen bi mooy xam naa ne suba ginaa suba. dina am ñu jukk ñi nga xam ne moom daara moom dañ njëkk bañ daara am na ñoo mhm. xam ne moom. dañuy dox pour cause noble am na ñoo xam ne xam lu ñu doon wax lu ñuy wax fi ñu toll pourtant ñoo leen ko doon wax gëmoo leen ko pourtant ñoo ngi leen doon wax ñu bëri ñoo ngi mboboo seriñ ñoo ngi def na su dul noonu ñi nga xam ne tey boobu ñu woon xale yelwaan yi dinañ si utiliser et que parfois it baax na xale di yalwaani baax na xale ñu jàng alxuraan mais maintenant léegi tey taxawaay bi mooy il est temps ñu xam kan mooy kan mhm. xam nga dañuy nekk ci quartier ay xale jéeyi am fa affaire Habib bi ma lay wax mhm. Habib kër gi mu nekkoon moom a kër moom a kër moom a kër chef de quartier bi ñoo dend non dama see defoon dama see defoon reportage boobu maa ngi enquête deux cent vingt mhm. fi mu dëkk ak chef de quartier bi ñoo dend kër affaire bi am na semaine ma ñëw di def si reportage ñëw di demande chef de euh, chef de quartier bi mu ne ma lii yaa moo koy door a wax tey. Mm. moom xamu si woon xamu si dara. kër séparé ko moom ak kër gi li mbir bi xew beneen bi mooy conseil de quartier yi nga xam ne moom la ñuy teg parfois. Mm-hmm. mais aussi ndaw nit ñi nga xam ne ñoo nekk si quartier bi xam dañoo toll léegi si dëkk boo xam ne nit ki day ñëw dugg si quartier bi ba dem bu ñëwee tey. bu bëggee euh, yëfi domicile ñu jox ko ak yooyu noonu mais tey dafa doon baax ñu xam nit bu ñëwee si koñ ñu xam ne kan mooy kan mais léegi xam nga kan la ñu jàppee moo baax ki nga xam ne tey moo jël seeni xale yëpp téye leen tey mooy jëndal xale yi bal mooy jëndal xale yi tàngal tey xool doy caaxaan de <laughs> moo leen di uufu en général kii uufu xale yi kooku mooy toroxal mm-hmm. xale non non mm-hmm. eh, dafa baax day baax. doo ko yu bëri nag ci parce que yenn yu bëri parent yi moo ko war a maytu parce que le fait que nga ñëw foofu fuuf foofu sama doom. da parent yu si bëgg lu yow. waa ñëw jël wala suñu génn fenn su la jegee la. parce man man man bii sax soo si duggee damay boo sa boo yoree jigéen damay damay bañ sax nga koy jox euh, góor bu toog parce que yu yu bëri mën na see xew. Euh, nan na pour a amaat di xam xam nga xam nga yow si uuf nga wax. Mm-hmm. man de sama rakk wala sama doom. ay yow laa nopp ak VTM yooyu <laughs> non du si am. Ah, xale bu ndaw judoogul. wala <laughs> fi ñooy def lay tooñ naan la chéri diw yow koo bëgg si kii. Mm-hmm. am ma may la man nga nopp xam ndax. mbaraan gi moo ngi tàmbali wolof Njaay dane lu feeñ ci sëy daa nuyoo woon sa ngoro ga das koo fayul mm-hmm. xale bu ndaw bi demagul fenn nga commencé ko may xaalis man nga nopp ama may la mm-hmm. yaa ngi commencé ji jàng xale bi fi intérêt mm-hmm. ay biisu ma fii xaw ma la non réalité la bi nga xam ne moom la ñu doon beneen bi mooy mu am des parents yoo xam ne ñoom ñoom ak seen borom kër rek bu 15h jotee wala 16h jotee demal foofu ji. pour ñu mën a sieste. non demal foofu ji. bëri mhm. na ñoo xam ne yóbbu nañ seeni doom alxuraan yóbbu ñu leen fa pour ñu am diine de. pour ñu noppalu dañ leen yóbbu pour ñoom ñu noppalu. ndaxte da nga gis léegi koo xam ne moo ngi mënal moo boppam lépp jël doomam deful dara si kër gi moo yóbbu xale bi crèche. <laughs> y a des yoo xam ne moom la ñu màggandoo moom la ñu màggee moom la ñu màggee après xale bi doo ko mën a doo ko mën a yor en tout cas li may demandé par rapport ak si lii mhm. bu nekkee ne niñ koy waxee noonu la képp ku si laale na yoon war a taxawee na si taxaw ba mu mat sa sëkk mhm. bu mu am intermédiaire bu mu am kenn koo xam ne day demander pardon mhm. laa lii buñ ko bari mu continuer si dëkk bi baaxul ñoo ngi wax waxi borom ñaari tur ñoo ngi wax waxi wàllum viol ñoo ngi wax tey tey wàllum pédophile bu yàggee dañ naan réew mi fu ñu jëm rawatina tey xam nga tey amoon na génération foot. Mhm. te leen doon maasee si boppam. non xaw ma ndax dañuy ñëw ji nga. yaa ngi suñu de. xam nga dañoo maanaam. tey dañoo xam ah, ji nga tey dañoo xam maanaam seen seen cible dañ koy xam. ki nga xam ne mooy ñëw di maase xale yi à tout moment. moo koy diw. fan la yegg si moom. bu fa kenn nekkulee la mu ko bëgg a def mën na ko koo def. Mhm. maanaam dañuy xam seeni cible juste rek pour wax ne na parent yi gën a bàyyi xel bu baax a baax li euh, maanaam seeni doom rawatina bul tayal tayal ba foo mënti joxe sa doom nga bañ koo surveiller mais aussi nga koy laajte saa su ne la ca war nga koy def beneen bi mooy yoon na mu war a def na ko def ba mu mat set mm-hmm. ndaxte man li wadi ji wax ne chaque jour qu'on se dort et qu'on se réveille il y a des nouveaux dossiers. Mhm. mais dossier bi mom gëna ma jaaxal. voilà dossier bi gëna la laa jaaxal Fatou. xam naa ne daaw wax na léegi ba xam di ñaaxaatoo parents yi ñi ñuy surveiller waat seen i seen i doom ba pare di wéy di leen di leen laaj parce que des fois yu bari. di mm-hmm. leen di laaj bu ñu jugee école wala bu bu ñu demee fenn ba ñëw di leen seetlu bu baax ay seetlu parce que yenn yi doy na waar bu ñu demee nag ba ñu ñuy jàngal ñuy def ña di ñaar foofu nag fu mu mën a jënd loolu nag moo tëj rubrique société bi suba incha allah jaaraale noonu tàggatoo ñu tàggatoo. <laughs> borom kaay ah El Capo moo la bëgg a dagg. pourtant man la de tey neer man la de. ah man la fekk waaye xam naa euh, day amoon contentement boo ko yow plateau bi ainsi que Daado di nuyu nuyu euh, encore amee internet Dakar 221 di leen jox di dajé qui la ci yenen rubrique